Caaroy gar Touba Caaroy kër soxna may musli lay commencé ñëpp maa ngi leen di gërëm kilo buru ñëw seen kaw mais taxawal lan moo waral kilo mburu kilo mburu dama nekk tout le ñu ma koy woowee temps bu ñuy entraîné ñoom ñoom da nga mel ni da nga yàgg a kooku combat tafaleer la tafaleer dugg si na moom ak kilo mburu ñoo war a bëree deuxième combat bi Pape Abdou Fall tafaleer ak euh, kilo mburu ay xale lañu yoo xamante ni gis nga combat bi nu seetaan ci kilo mburu ak bi nu seetaan ci tafaleer ñoom ñaar ñëpp gis naa tànk bi caaxabal bi mu dugal mm-hmm. lonk galgal bi gis naa it tafaleer ni nga xam ne noonu la bëri mm-hmm. mais tafa looy wax kilo mburu waaw auzu billaahi mina shaytaani rajiim bisimilah wa rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si yéen bi sant sama ñaari waajur sant sama papa ak sama yaay bu baax leen ñaan la yegg sama kan bu fekkee sama njëriñ ci làmb di sant Bécaye bu baax ak Pape Fall sant sama papa Kilo Mbourou pourtant nga ne sama papa kii ay kii mag la mag Kilo Mbourou mii ah daw dafa teel a bëri rek kii hmm. kii 83 la judd nga ni ma billaahi wallaahi yow banaa na nga man 94 laa judd ah billaahi aywa kii parle kii parle la la ni. ma nga ans. kii parle. mais li may mais 11 ans 11 ans 11 ans 11 ans est no que non mën na la ma ngi 11 ans moom du pas. kii waaw xool si moom yow Bécaye. bon naa mag laa yàgg naa ak yàlla. voilà kilo ñu uh-huh. bàyyi la nga nuyu. ak sawaay alhamdulilah mina seytaani rajim maa ngi nuyu Sénégal. xam nga di xam nga rek di gërëm samay ñaari waajur. xam nga rek mooy loolu daal kii moom xam naa dégg naa li mu wax lépp nag. mais maa ngi nuyu àdduna di nuyu Sénégal. miin bi moo doon kilo mburu xaalis moo doon on nani ko tafa wi ko onon fof oɗon jetti kono ha ha altine altine natti woɗɗude waaw loolu mooy la ah, mana ko moom dama nuyu Sénégal yëpp ma ne ko ma ne sama mbokk yi dégg ngeen lu mu wax mm-hmm. mu man mag laa mag yàgg na ak yàlla <laughs> mais nag altine yàggatul altine yàggatul waaw ñu lay boolee mbokk yi de mm, fii op ko om mooy mbokk doo ko mën a jëw waaw ko bul mënoo ko jëw oba mooy mbokk Uh-huh. waaw bu am sax ma ëppi ma ko. ko gën nekk xale. moo gën bu soobee Seydine bu soobee yàlla yàggatul bu soobee suñu boroom. Bécaye kii xam na ne su ma ko eh, jàppee. mais Kër Mour ñaata combat nga bëreegum yow ba yàgg nga bëri. trois combats laa bëri. Ah, sa combat bi combat bu yàgg la. trois combats mhm. man laay Pythagore laa bëreel man ñëw ma bëreel ñëpp a tàng. laay Pythagore laay Pythagore laa njëkk a bëreel. ma mhm. botti ko. Mhm. ma bëreeg euh, kii nii Fils Dioum ma caxabal ko. ma bëreeg maal bu mag. ma bëtt ko wër ko ndoom maal bu mag waaw. fan la woon boobu combat. boobu si àll bi la woon. si àll bi la woon waaw. waa waa Fambène ko tëggoon. ah Fambène sécurité yow. Hmm. dégg nga wax ma. ñim daan la <laughs> 28. moom day daanu. moom mii. la 28 bu soobee suñu borom day daanu xam ne. yow bari nga ay drapeau yow. Bécaye man dama bëri mbapat ba. billaahi wallaahi dama bëri mbapat ba tas. billaahi hmm. wallaahi champion gars yi bëri barki alxuraan foo toj. billaahi walaay foo toj bari na foo toj foo toj bari na foo toj dama lay laaj fi ma toj bari na moom ma fi naan fii laa toj fii ak fii dafa soo waxee foo toj kay ma wax fi ma toj naan fii nga toj ma nag fu mu jëlee yi moom it ah, waaw xam nga hmm. si mbapat yi waaye kii bu muy bëri boobu mën a ma moom mbapat la wax mbapat la wax kii mu ngi mbapat boobu man commencé ko bëre xay yow lamb yaa ngi tëgg fan yëpp nga naan ay kii wallahi alxuraan mais temps yow temps yi yi ba may bër mbapat bu tas billahi wallahi musuma daanu mbapat man maa ngi ñaan yàlla suñu borom mii di may ndam mu may ma aar laa duggee aaren daanu man xamul xew suba te defet boobu jeex na waaw te da juumoon ci général dama juumoon ah, bu faas faas kilo kilo mburu mii. non boo paree ci kilo mburu nga laajaat général. xam na ne moom dama koy daan. moom kilo mburu mii moom mii xam na ne dama koy daan arbitre dina ko xam. du kilo mburu nag bu koy gis nii. dafay niru play boo yooyu waaye. su ma ko jàppee làmb ji jeex. nga ni ma dégg ma de et puis Mantora mooy bëri Tyson 2. muy bëri dégg nga ñoom dañoo bëri ay combat. dama ne. numéro hmm? day daanu la 28 en tout cas làmb ji maa ngi woo waa Ndayan. waaw di woo waa Popenguine Popenguine Popenguine séeréer. Mhm. di woo waa Géro Géro séeréer. di woo ñëpp waaw ɗi wawa sindia yewtukolor nga mbeɗa nodda bandiraɓe haalpulaar en fof kala biyeteɗo mbimi e mbimami ɓinguel moɗon sipirte comme jiɗɗo noon ballon kam onon wawa kongo mi yi ballal ngol mbaɗon ngal koɓor mi ko mbaɗɗa ko <laughs> ene wawma hen en wano ɗum wawde wadde wasde wadde ba ousmane onon foof mi ko mbaɗɗon ko lamba ka ko altine mbeɗa ñaagui noon onon foof jippi noon kamilaji mbaɗon foof mbaɗon duwa mbaɗon kaɓɓe mo ho tampin hoore ma Mhm. <laughs> sa yimo ganda wonko wonemo kaɓɓemo haw wi hottanpin hoorema ki yimi wax mbeɗa nodda noon madina jaɓɓe medina jaɓɓe eh, medina jaɓɓe onon foof mbaɗane mbaɗane utilita e singa duwaw jippi noon kamulaji mbaɗon fof medina jaɓɓe moom mbolo fo yobbo medina jaɓɓe kala biyeteɗo mbima e mbima ɓinguel moɗon kala halpular kala kala ɓi kala kala kala mbimami kala tan yo jaggo tafa waxalaki wa ata yow eh, tafa yow kulemour taxawa duwaw eh, mbaɗa noon duwaw taysen 2 waa léegi taxawal yow waxal waxal ak moom. Laye Gora pare na. pare na man tey bu parewul sax man nee naa ko pare na. pare nga nee naa la bëgg ay kii bu woon Sénégal yëpp ci kattanu suñu. borom mais dinañ jàppale la wax. moom foofu la xam. waaw man waa Réfane laay woo. refan waa bool yi yëpp képp kuy bool bool maa ngi lay woo la 28 nga ñëw jàpp si lamb ji ma jàpp dam ko sama gars fàtte ma koy omelette géewaay géewaay marché ko si la wax jox la ko defal nii mu mujj bi tàggool waaw maa ngi woo waa géewaay marché bés di woo waa uru saret caare dawal ko saret yëpp zëngal bi gars yi xoolal mooy loolu noonu ay mu jóg gars yëpp ñëw leen seen seen fiis mooy bëre na tàng jër. comme ni ngeen doon taxawoo mambaala buy bëre. ay na fa war a tàng nag kon kon ko nag xoolal sama gars yi ñoom marle gars yi bu ñuy bëri ni ngeen leen taxawoo xool da ngeen war a wane seen bopp. waaw gars yi dafa war a jóg. voilà bon Kilombour merci agent Tapha Leer waaw man moom dagaay lamb ji ma di wax sama supporter fu ñu mën a nekk le 28 ñëw koñ. le 28 altiné altiné. parce que monsieur le maire Abdoulaye suñu monsieur le maire na billet bu pare. ku ñëw foofu mais maa ngi woowa ah. li ñu am ci lu ñu leen di wax mooy. waaw dafa am benn phénomène boo xam ni commencé na développé ci làmb. Mm-hmm. tax na amateurs yi sawaratuñu ci. borom euh, noble yi kenn bëggatul ñëw làmb quoi mm-hmm. parce que mbër mu ci bëre rek. Mm-hmm. ànd ak ay supporteurs am dem ñibbi. loolu moom loolu day yàq décoru làmb. loolu day ñaawal làmb. te defa naa ni comme yéen ay acteuru làmb yi. yaa ngi dégg yéen war ngeen ci bay seen laaj moom mooy lan sensibiliser seen. Euh, supporters yi ak seen waa écurie yi ba boo leen bëreetee ba pare ñu toog fa bañ a yàqal promoteur bi rek parce que loolu gàtt xel la bëree ba pare yow seetoo intérêt promoteur bi seetaan seetoo ni nit ñi ñu ngi seetaan télé seetoo lan lu dul ànd ak sa njaboot daal di dem cela veut dire que ni yow sa intérêt moo doon lan nga bëre rek dem nga sa yoon jërëjëf loolu yaakaar naa dam léegi ñuy ñaan sant waa tu waa gaawam ma sant maa ngi sant waa Bawol yëpp sant waa Refan sant waa Touba waa Parcelles waa Daara Jolof waa Ndoc xam nga waa Medina Kañol Robos fépp di sant sama père Baye Galas Ousmane Ngom Daara Jolof maa ngi koy sant bu baax di sant Xaaya Gueye moom tam may ma ay biir yu bëri. Xaaya ma ji nii Xaaya Gueye. may maa ngi koy sant bu baax di ànd ak sama ma dal fii nii ñoom dox sa gar ñoom Mbaye ñoom Habib. yaay bu baax sama tànt maa ngi koy sant bu baax a baax. di sant sama doomu ndey Modou Faye maa ngi koy sant bu baax. combat bi dañu cee sonn billaay wala talay merci Tafa sama waa ko ñëpp maa ngi sant waa ginnaaw raay bi la a ñëw fesal kon ñu seetaan benn combat dellu siwaat ci plateau bi ginnaaw kilomètre ak Tafa Leer bu yëmbal benn baraak ak Zos 3 bu centre Jacques Chirac oh. raanam armée sukk de waaw am nan la ñuy di bëri. mën naa bëri nag. ah waaw ku mën a bëri ko daan de moo ne. armée ku mën a bëri ma. Ah, waaw waaw daa mën a bëri la. waaye waaw mën a bëri la. waaw ku mën a bëri la. mën naa ku ah? ah, wuti wuti jàppoo. bàcc seras mi ngi jéem a ah jël ba na. waaw jël ba na. lu ma la wax oh Zoss numéro 3 daan na ko jël bu rëy. naa ni ñoom ñaar gis nañu seen i seen i comme nee ya. gisuma ko gisuma baab gisuma yaay kon boo sama bakkan laa ci teg. ah waaw. neex ah. waxal wuyu ko. Bécaye kii bukki wiiri wiiri jaari ndaari mooy maanaam Bécaye kii dama koy jàpp dama koy daan kii dégluwuma et eh, attends attends armée dafa dangereux ku dangereux armée kii waaw kii dangereux nga ni ma Bécaye kii du dërëm dama koo seetaanaa ah. moom Bécaye mais nag ni nga lalee waa ji léegi jaax wuy ma ñu loolu bukki wiiri wiiri jaari ndaari loolu laa bëgg nga dina ko daan yàgg ci loolu ba pare mooy lan kii. Ah. moom laa waroon a bëreel sama combat bi passé. Ah, mooy ki nga doon wax. moom la. Ah. kii laa waroon a bëreel muy wiiri wiiri. naan booy bi damaa kii li nekkoon. yow su yokku naa doole yokku naa technique yokku naa xam-xam. yow amoo doole amoo doole yow. amoo doole mbër dalul yow yow yow yaa eh. samay mag la woon. déglu ma bis mu la jàppee Momadou Bari. su ma la la jàpp dinaa la daan la am ma. ni laa lay def ni nga ma xamee laa la xamee. ba ngay bëri yaat samay mag la woon. Eh, yow ma duma daanu de mais naa la xamal ñaar mbër muy cakaay duma daanu inshallah di nga naa la eh, daanu non kii cakaay waaw yow bégaa doom may kii ah. xam lu ma jàpp sama loxo maay borom ah. barki Seydina Muhammad lu ma jàpp maay borom xale la non parce que dama gis ni yow yow yow xamal yow yow xamal yow jàpp boobu nga wax du dëgg si yow kii ah. ki su ma ko jàppee dina xam ne lépp dëgg la sa mbem mbem nga xam nga li ma la wax xam nga li ma la wax yow xam nga yow yamul da nga wax ne combat bi du gaaw du yàgg kii tapet la xanaa waaw jërëjëf <laughs> tapet la mais lenn laa la xamal incha allah soobee yàlla kii naa ko moroomam ah? damaa mag fu kii kii mag sooy mag la kii eh. jox nañ ko jaxaay Mamar Tall mu delloo mu bàyyi ba jour combat bi ñëwul naan xaw ma ne yow ngay bëri yow ñu xam la eh, mais nag niru noonu eh, yow dañ laa xam bu baax kii su ma ko jàppee yow amoo fit kii su ma koy jàpp dina xam ne lépp dëgg la kii tapet la. <laughs> Ah? amoo fit kii tapet la. da ngay yoroo rek mais eh, amoo fit ñaata combat nga bëreegu. cinq combat laa bëri. Oh, ñaata victoire. trois victoires deux défaites. deux défaites armé yow na. te nekk kañ nga bëre ba pare laaj ko. kañ ngay commencé bëri ban année. eh booy li ñuy laaj do yaa koy wax ah. waaw <laughs> eh bon eh yow waxaat <laughs> sa luy ah. si combat bu mujj laa bëre maag si te laa commencé laa bëre woon daanu. Siteu Siteu combat boobu nag ci laa gëj. fan la ci laa gëjoon bëri nag ba léegi. xam naa la xar géppeñ nga ragal kii dinaa ko kii dinaa ko jàpp nga kii kii am na kii fu mu fekk laa la dinaa ko jàpp dinaa ko daan ci kattanu yàlla. kii ragal la yow am naa la xar géppeñ nga yow tapet la yow ku la xool xam na ne tapet la yow tapet la bu bu boobaa Bécaye fii lañ taxaw kenn nekk fi man yow Pape Abdou Fall ñoo fi nekk nañ taxaw raat cinq minutes yow kuy yow sa kanam sa kanamu tapet bii nga ne ma di nga yow kanamu tapet yow xamee nga tapet yow yow eh, tapet bu mag nga yow kanam tapet bu mag nga kanamu paa bi yow kanamu tapet bu mag nga yow mën ma xool su ma la jàppee dinaa la dinaa la jàpp dinaa la daan ci kattanu yàlla léegi déglu la déglu six mois laa def ci arène bi six mois bëreeg yow kon xam nga ni yow man am na fu ma teg sama bët yow doo fort man fu ma teg sama bët na moo ëpp toog maa bëgg a teral sama yaay de maa ma teral sa yaay il faut maa ma teral sa yaay wala ñu baax ma naam béy su ma la jàppee di nga xam ne lépp dëgg la kese la am su eh, dëgg orange bi pour dama lay ah, xamal ñaar kii dama koy utal après orange gu jaay mais béjjën yi rek moom kay déglu moom mu jël il faut ma teral sama yaay ñi jëlee sa yaay dinañ yóbbu ay maa suñ ko jàppee dina xam ne lépp dëgg la daa ma teg sama bët de yow da nga am yow xam nga yow doo ma fa traité bët yu ndaw yi doo amul yow xam nga yow loolu doo ma fa traité lépp dëgg la yow yow ragal bu mag nga tàppet bu mag simila sal simila sal xawal ma foto fii kenn du ko tapatu manga yow tapatu manga xam yow yow mooy loolu ku la xool xam ay tànk yi ngeen nga bis ma la jàppee waaw kay yow sama la sall nga daw yor si yow tapper nga yow tapper nga rabal nga dinaa la daan ci kàttanu yàlla yow dinaa la daan ci kàttanu yàlla ragal bu manga yow dinaa la daan yow yow day tapet essence déglu muy tapet yow yow ragal nga ragal nga ragal nga ragal nga ragal nga ragal nga yow tapet nga tapet nga eh booy noppil bon xam nga fii kenn du ko fi maye bu leen mu sonal te nag maye jeex na Sénégal <laughs> na ngeen ma dimbali bu fi kenn mayee te dara lu leer laa leen yëgal bon léegi yow kàddu bu mujj bi lan la waaw di sant yàlla bu baax parce que yéen moom yàqu leen fi yàqu leen di sant ñi may jàppale bu baax mënumaa lim yëpp seen tur jar na jar na mais maa ngi woo waa benn baraag bi yëpp rawatina ay see daaru neexle bokk xalaat ay lakkale jokkoo yooyu nu mu tuddati ay nu maar yi bisaab bi tout maa ngi woo xoolal. ak xorom ay say xorom seeg ñëpp. nañ ñëw maa bëgg affaire sax xoolal a yi comment dama dama si war a wane sama bopp de. waay waay jot na kii xam na. mais nag a paase bii paase wane nga sa bopp. non non am na leneen. waxoon ci bii paase ci lay yem. kii incha allah si kattanu yàlla ci lay yem. ci bii paase yow demoo bàyyi woo man damaa fu ma bëgg a dem. li ma lay wax man 6 mois laa def ci arène yow def na ci ko daan munoo bouger fi nga toll man daa am fu ma teg seen doom ci kattanu yàlla békaay 2008 la maa ngi sant ñi may jàppale bu baax di ma ñaanal tax musuma leen a gis musuma leen teg bët ñii par message rek laay waxante ñoom di leen sant bu baax a baax di leen wax ni lépp yegsi na. kii fu ne jaar na fa. non lu ne la ma mu bëgg ma combat fu ne la lu nekk. billaay wallaay bëri ci ma bëri waaw sama quatre combat yëpp yaa ko tëgg. jiga diw ma nag di ñaan yàlla nag. mais nag dinaa la daan mel rek. dinaa la wax benn mbir dinaa la wax benn mbir sa lamb yëpp. trois trois victoires la am lamb yëpp ñun ñoo ko tëgg bii la am quatrième victoire ci kaw kàttanu yàlla Mamadou Bari mii toog ñaan yàlla am ci kawam quatrième victoire mais euh, armée ah, déglu ñu dañu gis benn mbir boo xam ni sa lamb yëpp ñun ñoo ko tëgg mais gis nañ ni heure boo bëree ba pare rek ànd ak say supporter daal di dem muy lenn loo xam ne rafetlu wuñu ko parce que apparemment yow sa intérêt rek nga gis du dëgg or que àdduna moo ñuy seetaan nit ñaa ngi toog ci télé bi mais gis nañu nii Euh, benn détail rek nga am moom mooy que ni heure boo bëree rek ànd ak sa mbooloo. waaw bàyyi turbine bi noonu. loolu amateur yi ñaawlu nañu ko man samay supporter non def leen dànk ah, dañ leen wax duñ dem dañuy toog. dañuy toog ba seetaan grand combat laa la wax non def leen tànk rek c'est-à-dire lamb foofu la te ay ndaanaan ñoo koy seetaan uh-huh. ma gis nañu nii parce que boo leen génnee ak seen i support dem supporter stade ba vide stade bi vide insécurité am ci fekk sécurité bi ne ci biir làmb ci biir day loo xam ne promoteur bi mënatu ko maîtriser kon li ñu leen di ñaan moom mooy que en dehors pécule bi nga xam ne li nga xam ne moom lañ leen koy fayee ngeen jouer ak seen conscience moom mooy que ngeen dimbali ñu ba boo leen bëreetee ba pare toog ak seen ay supporter bu làmb ji tasee sécurité bi mën ànd ak yéen sécuriser vraiment seen ñibbi bi yow nga ne lan